xamante ni alxuraan amul jotu tudd waaw dugg ci sax am na sax yu bari yoo xam ne ñaa ngi koy def te nekkul ci téere bi te waaw kay xam nga waa ji yor taabalu géej gi ca marché ba mhm. yàlla yàlla amul jotu tudd taabalu géej gi si marché alxuraan mhm. parce que kon ay détails lay doon mhm. moo am na yenn détails yoo xamante ni yàlla du si dugg ci alxuraan parce que nga xam ko ak nga ñàkk ko xam amul la njëriñ mais lépp loo xamante ni nag dina la amal njariñ ci sa dund yàlla nee na sàgganewuma ko bañ ko see def mooy baatu farat bi te boo xoolee ci point bi ma taxawee muy chifa gi nga xamante ni alquran dafa ñëw pour faj jàngoro jullit ñëpp xam nga yonent bi salaa salaam moom mooy mooy mooy mooy mooy médecin bi gën a aay ci médecine yonent bi faj na ci médecin moderne faj na itamit ci alquran ma jox la si ñaari exemple bu si nekk xadis yi wér na ci saxiix Buxaari yi boo demee ci téere bi ndax mawaakibul xubb bi Cheikh Salahuddin mhm. égyptien la ak Tijaani fa laa doon jànge ci Égypte ma nga fay indi xaddis euh, euh, bi may waaj wax boo demee ci ak tibbul nabawi ci imaam Suyuti yi ma nga fay indi lii yeneen bi sallallahu alayhi wasallam benn saxaaba xëy na ñëw ne ko sama biir dafay metti mu ni jox leen ma lem ñu jox ko lem mu nàndal ko lem mu nàndal ko lem mu wér kon faj na si médecine moderne parce que ci chose la faje abu hurayra xëy na ñëw ne yonent bi salaa salaam tey daal damaa yeewu sama biir bi di metti yonent bi salaa salaam ne ko salli rakaatayn jugoon nga julli ñaar rakk mu julli ñaar rakk daal di wér kon faj na ci alquran parce que julli mooy alquran hmm? kon ndeke yonent bi salaa salaam faj ci alquran ba yonent bi nee na sax man yenn saa su ma xëyee girib feebar damay julli ñaar rakk daal di wér kon ndekete am na ñoo xamante ni chose médecine moderne mënu leen a faj alquran rek moo leen mën a faj loolu nag ñaari nit la xam nga nit ñaar a ko composé muy l'esprit et la matière léegi nit ki bu dee dund bu demee ba matière bi domaine l'esprit bi kooku su feebaree médecine moderne yi moo koy faj piqûre yi rek jël garab waaye nag bu dee moom l'esprit bi muy am bi ruux gi la traité di ko chargé ba mu ëpp doole euh, jëmm ji kooku su feebaree luy faj jëmm du ko faj luy faj moo koy faj mooy ibaada yeeg awraat ah, xam nga boo bu ma cité benn benn mag benn kilifa muy Cheikh Al Hadj Abdou nga xam ni bokk na ci ñu ñu yar lu nekk si man yàlla def na ci moom la ko yàlla jaarale ci yu bari. Mhm. dafa wax benn wax dañuy inna madhan nabi xayru ilaajin aalijuni bihi fa fihi shifaa yi mhm. bu feebaree dafa feebar ñi pikiir wérul ñu jox garab wérul mu ni man li may faj mooy nga taxaw tagg yonent bi su feebaree ba mënoo ko yëkkati boo taggee yonent bi dafay mel ni dose lañ ko jox kon nga xam ne moom ruuxaaniyatuhu muy l'esprit galabat ala bashariyatihi mhm. maanaam moo not matière bi mhm. kon nga xam ne Abu Hurayra bi ko bi mu feebaree feebaru biir yonent bi néew ko naawanaan lem néew ko pikiirul parce xam ne ne Abu Hurayra toll na ci dimension l'esprit foo xamante ni mu ëpp doole matière bi kon luy faj matière du ko faj luy ko salli rakaatay waaw kay yonent bi toll na ci degré boo xamante ni ruuxaaniyaam maanaam l'esprit muy am bi moo dominer matière bi moo tax kooku su feebaree du piqûre koy faj mhm. moo tax dina am yenn yenn yenn mbir yoo xamante ni alquran rek moo ko mën a faj ci nit ki te bu si nekk dafa am preuve ci alquran léegi pour nga faju si alquran wala nga jariñu si alquran dina tegu ci ñaari étape bi si njëkk mooy mu nekk texte bu wàcc lu mel ni texte prophétique comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sàngam ku ko jàng dina la jëriñ nàngam par exemple yonent bi ne ku jàng sóoratul bàqara ci sa kër ñetti fan seytaane ak rab ak jinne du fa am accès jeex na c'est fini c'est fini sóoratul bàqara wala yonent bi ne sóoratu ayatul kursi ku koy jàng ci place jinne ju yàq moo xam day sàcc wala mu lay kirisloo dootul man ci yow dara kon nga xam ni jël ci alquran faju si wàcc na ci texte prophétique benn ñaareel bi dafay toll ci dafay àgg ci dimension nit ki nit ki dina toll ci alquran li alquran di wax na war raasixuuna fil ilm di nga toll ci dimension foo xam ni dangay ngay jékki-jékki rek mel ni yàlla moo naan la aaya bii dina faj nangam ak nangam ci dimension te bu si nekk rot na ci sunna ma jox la si ñaari exemple bi si njëkk mooy yonent bi sallallahu alayhi am na benn saxaaba bu mu yabaloon ci benn dëkk bu doon ci jamono nga ni benn koñ pour ñu tuub bi ñu demee saxaaba bi Seydi Hajj Maalik mi ngi koy tudd ci téeram boobu inna rasula bi qadri mursaxtakimi bi mu ñëwee ñu ne ko ah yonent bi la yónni ñu ne ko waaw ñu ne ko nag pour ñu gëm ñu yonent bi la yónni foog nga wan ñu miracle mu ne lu ngeen bëgg ñu ne ko dañuy jël kaas def si posen poisonné la jox la nga naan soo dundee ñi xam ne dëgg la ñu gëm la soo dee nga noppalu noppal ni hmm. bi ñu jëlee kaas bi poisonné na ko def si posen jox ko saxaaba bi dafa jàng faatixatul kitaab tifli ko si naan dara jotu ko moo tax nga gis mag ñi dañ daan dem place wóoluwuñu lekk ki wala ñu ngi sib sipsone ñu jàng seen aaya wala dara. léegi mi ngi dépendre ci gëm gi bu fort bi nga am aqida bi nga am gëm-gëm waaw. xam nga li ma la bëgg xamal foofu moo di ne xam nga amul fenn ci xaddis bu yonent bi wax ne faatixa kat day faj poison. amul léegi saxaaba bi lu tax bi ñu ko joxee poison mu jàng si faatixa lu tax jàngul xuloo la ahad lu tax jàng xuraan di rabbi lu tax waxul barke yonent lu tax naanul noonu rek kon nga xam ne dimension ci faatiha gëm gum ko gëm ak dimension fa la ko yàlla fekke si hmm. am na beneen saxaaba boo xam dafa doon tukki mu escale yi may wax nii yëpp euh, ku bëgg turu saxaab bi wala xaat preuve bi boo ñëwee ma wan la ko saxaaba bi muy tukki ñëw si benn dëkk escale fa guddi boroom dëkk bi jaan màtt ko bi ko jaan màttee ñi ne a ah, am nañu escale fële te ay arab la nan leen dem laaj leen ndax ñoom yoruñu luy mocc jaan luy wàcc dangaru jaan bi ñu ñëwee wax ko saxaaba yonent bi salaa salaam dañu ah kay fay leen man nangam ak nangam ci ay xar ak yooyu ñu fay ko ko muy jàng faatixa di jàng faatixa ba jaan ji wàcc bi mu ñëwee wax ko yonent bi déglul question bi ko yonent bi posé yonent bi ne ko ku la xamal ni faatixa day lugg jaan ay wàcc jaan mu ne ko a ah, yow kat yaa wax ni faatixa dawaa un shifaun li kulli daa fatiha amul lu munta faj te amul saxaaba boobu avant muy jàng fatiha di ko wàccee jaan ji mosul dégg yonent bi wala alquran ne fatiha kat day wàcce jaan mais bi mbir mi ñëwee dimension bi mu toll ci alquran ci la xam ni ci la ko yàlla xamal ni jàngal fatiha jaan ji wàcc ah. moo tax ibnu sirin nga xam ne taabiin la nitu yàlla bu mag la xam nga jox naa la exemple ci yonent bi jox la ci saxaaba dama lay jox tamit ci taabiin ñi nga xamante ni ay nit ñu baax lañ ah. ibnu sirin nga xam ni siiwe woon na ci firi gént ba ñuy firi gént sax lam waxoon daan ko firi gént la ñuy référence o hmm. benn dafa toog di jàngale benn taalibeem ne ko sëñ bi biig damaa gént di nodd mu ne ko préparé ren di nga dem màkk ci même jotaay bi benn taalibe ñëwaat na ko ibnu sirin man damaa gént di nodd mu ne ko préparé li nga sàcc ñi dagg sa loxo ah bi nodd gi dañ lay da ngay dem màkk nodd gi da te même ñaari gént yi la te waa ji waa ji dem màkk kii ñu dagg loxo bi. te ci gént gént gi benn gént waaw benn gént la. xam nga tey fii koo fi laajoon firi gént naa la ah ko lu baax la dem nangam nangam. mais Ibnu Sirin bi ñu ko laajee ne ko waa lu tax nga firee ñaar yi te mu nekk dëgg lan la wax dafa ni kii bi mu ne maa maa ngi gént di dem màkk. di nodd di nodd di nodd yàlla daf maa. indil aaya alquran bi yàlla di waxe naan ibrahima taxawal nodd na kaay leen ngeen agsi wa addin fi naasi bil xaj yatuuka rijalan wa hmm. ala kulli daamirin yatina min kulli fajin amiq la yàlla jox aaya boobu ci saase ci ko dinga dem màkk kii bi mu ne maa dama gént di nodd yàlla ma wax aaya ba nekk ci suuratu yuusuf daan ni euh, fa addana su ma mu addinun ayatuha al ayar hmm. la saariquun